you internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di am mbégte ak contentement saa su nekk rek eh, niñ koy defee fii si biir eh, Kabir TV dikkaat nañ seen émission Kabir matinal eh, Kabir matinal nu ngi koy daal di defee rek saa su nekk di lundi au vendredi leen daal di farañ fàcce nag li nga xamante ni moom moo di lépp loo xamante ni information la ñu leen koy daal di càmbaral bu baax a baax mbokk yi ñu ngi ziar ñëpp di bëgg ñëpp di nuyu nag ñi nga xamante ni mooy suñu mbokk mason yi di leen di baax a baax baax di leen ziar waaye tamit di nuyu suñu mbokk yi moom di Mané Bari ñu ngi nag euh, à travers ki xam moom mooy di euh, di ko nuyu au passage moom Lat Thiaw di ko nuyu bu baax a baax di ko jox nuyoo bi mu joxal ñu ko euh, mbokk mosoom yëpp waaye tamit yëral ñu nga xam moo di les Mané Bari aussi nuyu ñëpp képp koo xamante ni yaa ngi nekk ouvrier di yëngu fii si biir Sénégal ak lu ko wër nekk doomu Sénégal rek ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la jaajëfal waaye rawatina nag ñi nga xamante ñooy maçon yi ak ñi nga xamante ñooy Mané Bari di jaajëfal ñu baax a baax baax ñi bàyyi xel seen télévision mag bi di Kabir TV di nuyu naqari visero yi deen di jaajëfal bu baax a baax yàlla yàggal leen tax seen taxawaay yàlla dëgëral leen guddal seen fay ñoom tamit waaye di eh, nuyu ñu nekk eh, fa nga xam moo di maison de rééducation ñaanal ni yàlla génnal fa ak jàmm ak salaam waaye di ñaanal nag ñi xam moo di ñu tawat ne si kër yi ne si hôpitaux yi yàlla na yàlla fëgg seen bopp yëkkati leen ba fi yëkkati yeggul di nuyu nag Sénégal njaay yëpp di nuyu safar si di yàlla jàmm tali waaye di nuyu nag ñi si bureau yi ni si nga xam moo di eh, kër yi di togg añ yi wala bokk di nag def li nga xam di jàkkaarlook seen télévision Kabir TV ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu rek fu waaye mën a nekk fu waaye mën a féeti lay di la ziar bu baax a baax mbokk yi dañuy daal di rek euh, tàmbali amoon information yi waaye nag daal di tijji benn parenthèse bu ndaw balaa ñoo gën a joxe lu gën a fas si yéene kaay yi euh, tey nag nekk je nga xam moo di euh, journée annuelle boo xamante nii ñu koy sarfal def ren mu nekk septième édition bi nga xamante ni fii si Taxaco lañ koy amalee ki nga xam ne moom moo di Cheikh Matar Gueye moom nag moom mooy def rek nga xam moo di journée ki nga xam moo di édition septième di. di nag def daal di ànd ak nag mbokk taalibe yi mbokk euh, am di jàmm yi xarit yeeg soppe yëpp euh, nar a fii nga xam ne moom moo di euh, taxu kaw jëm fa la nga xam ne moo di nasru dem ziare ji nag ki nga xam ne moom moo di sëriñam di sëriñ Assane Kane borom nasru nga xamante ni borom xam bi borom ñaan yi borom ki nga xam ne moom moo di wax ju tey ji wala wax ju set ji kàddu yi tabaarakallah yi nga xamante allah bu ko yëkkatee rek xel yëpp dañuy dellu si yàlla waaye tamit xel yi dañuy euh, daal di dalaat bu baax a baax ndax moom euh, nit la koo xamante ni ku yàlla may xam-xam la waaye ku yàlla baaxal it waaye mu koy yàlla yi moom la ki nga xam ne moo di taalibeem bi di euh, Serigne Matar Gueye wala boog seex Matar Gueye war a ba ànd ak taalibe yëpp kenn ku nekk nag dana ànd ak ki nga xam moo di Cheikh Matar Gueye aju si ginnaawam ñu dox wuti nasru dem nag ziyaare ji ki xam moo di ku tedd ka fa nekk di Serigne Assane Gueye gan nga xamante nii moom yaakaar naa ne kenn dootu ko présenté wax ma la Sénégal wax ma la Thiès waaye àdduna bi yëpp eh, ñi ngi koy xam rawat na à travers les réseaux sociaux yi nga xamante ni Eh, ñu ngi koy daal di wane bu baax a baax ak ñaan yu fay amal waxtaan yi ko yëpp ñu ngi koy daal di faral def waaye eh, tey daal moom mooy eh, septième édition bi nga xamante ni Cheikh Matar gi moo koy amal di ko ziare sëriñam mi nga xam ne moo di sëñ Assane Kane waaye nag ànd ko mbokk taalib yëpp nga xamante ne nii képp koo xamante li si toll si dugub mboq ba si ceeb lépp loo xamante rek ba si kànja sax day dem sa mbir ma waaw ginaar yeeg ah li nga xam moo Mm, bëy yeeg gëlëm yeeg naat yeeg lépp cokkeer yeeg euh, pitax yëpp lañ nar a daal di boole daal euh, dem fa nga xam ne moo di nasru daal di ziare ki nga xam ne moom moo di suñuy sëriñ mbokk yi loolu ab euh, parenthèse bu ñu la nga xamante ni saa su nekk rek yenn xew-xew yi su xewee dañu koy daal di fësal nag ba ñëpp daal di koy xamee fii si Kabir TV waaye nag dinañ ànd ak nag si kanam tuuti exclusivité lay doon fi nga xam ne moo di Kabir TV dafa leen en direct yoo xam xamante ni eh, dañ koy aju si li nga moo di ziar bi toppal leen ko di début à la eh, si kanam tuuti rek incha allah dinañ ko sóobu ànd koog nag li nga moo di eh, toute l' équipe Kavir TV mbokk yi dañuy daal di tàmbale nag si li gën a si yéene yi daal di koy dem fa nga xam di l' l'observateur nag li mu daal di xam na rek mooy euh, benn bokk yaakaar euh, daal di ñëw rek mooy l'ampleur du malaise moom la ko daal di tuddee l'ampleur di malaise maanaam daal benn bokk yaakaar ak wax ji sew jaag féewlo ba yëpp mu ngi koy daal di euh, xam ne rek si xët mu njëkk bi waaye ba tey li nga xamante ne nii moom moo di euh, lépp lu aju rek si xam moo di euh, coalition bi nga xamante ni ñoom daal dañoo daal di booloo rek dañoo daal di féewaloo di moyes mu nga am si li nga xam moo di euh, coalition bi waaye tamit bu ñëwee rek si ñi nga xamante ni dañoo daal di feebar daal euh, ba sonn ba yaakaaratul seen bopp ñoom daal fu mu toll nii neneen daal euh, dee daal la ñuy xaar ñoom daal fu mu toll nii ñoo daal di génn waaye nag euh, xët mu njëkk mi daal di koy tuddee nag mala les les malades les malades dans l'univers la ko daal di tuddee mu nekk nag loo xamante ni ñoom daal dañoo daal di feebar feebar bu nu méttee métti wala bu yàgg ba fu mu yaakaaratu dundu seen àdduna euh, mun ñu dem fa la nga moo di diwaanu waa Saint-Louis saint nag ñu nemmee ko fa li jéy ji amoon euh, mu nekk nag jéy joo xamante ne nii suñu mbokk euh, ñi nga xamante ne nii immigré immigré yi doon dem fële sa tugal rawat na nag seen gaal googu gis nga jéy jafa mu jaam fu mu toll nii ñu nemmee ko si 26 personnes maanaam ñaar fukki nit ak juróom benn yoo xamante ni daal dañoo daal di ñàkk seen bakkan si gaal googu nga xamante ni ni moo xew fële sa Saint-Louis di jéey joo xam ne jéey ju um, rëy rëy la waaye tamit uh, bu ñu daal di ñëw rek moom moo di uh, lépp loo xamante ni uh, dafay daal di aju nag si làngub politique bi lépp loo xamante ni mooy coalition bi nga xamante ni mooy candidat yi nga xamante ni dañ leen rakale woon ñooñu tamit ñoom ñëpp rawat na nag lu toll si li nga xamante moom moo di euh, M20 f ak FC25 ak ki nga xam ne moom moo di FDD ñoom nag dañoo daal di rek euh, mooy aar suñu élection euh, des coalitions dit li nga xam ne moom moo di ay solution yoo xamante ni ngir nag daal di def li nga xam moo di ay universitaire rawatina ay Euh, regroupement ay regroupement yoo xamante ni dañ ko daal di euh, woote autour li nga xamante ne moom moo di nag ñoom ñooñu ñëpp si def benn résidence boo xamante ni résidence boo xamante ni daal dañ koy daal di en fait dina euh, faire face au président Macky Sall ñoom nag dañoo daal di ji jàkk nar a jàkkaarloo Macky Sall ngir rek li nga xamante ni moom mooy plateforme mise en place bi nga xamante ni moom la daal di nar teg rek ngir nag loi amnistie yooyu yëpp moom la ñuy xeex ngir mu bañ koo wootee fële sa pencub ndaw réew ma maanaam daal euh, assemblée nationale loolu rek euh, moo tax ñoom ñu daal di loko ngir nag euh, mun a xeex li nga xam ne moom moo di mbir moom mu nekk nag loo xamante ni daal ñoom ñëpp ñi nga daal di manko bokk ndey bokk bàyyi ngir nag xeex li nga xamante ne moom moo di loolu waaye tamit ba tey rek dañuy daal di àndandoo nag moo di projet bi nga xamante ni moom mooy projet Sonko. ak Adji Sarr wala boog nga ne Mame Mbaye Ndiaye Mame Mbaye euh, euh, Mame Mbaye Niang ak nga moo di Adji ak nga moo di Sonko ñaar yooyu yëpp nee na daal du bokk si euh, li ñu war a woote maanaam décret bi nga xamante moom moo di décret admissible bi du si bokk moom moo tax si yeneen yi daal ci yéen ñu a càmbar ngeen mu bokk si waaye dossier bi di Adji Sarr Sonko ak Adji Sarr Mame Mbaye Niang du bokk si li nga xamante moom moo di mbir moomu waaye tiiri ba tey rek ñu daal di aju rek si nga moo di football euh, dal di dem nag si suñu ki nga xam moo di Diafra euh, nekk ex li nga xam euh, international bu Sénégal moom tamit nekk na fu mu toll nii adjoint coach adjoint bi nga xamante moom mooy diwaanu génération foot lañ ko daal di tabb nag fi nga xamante daal moom mooy si e bopp équipe boobu noonu waaye tamit bu ñu daal di demee rek moom moo di l'enquête enquête nag daal di ñuy ñëw nekk si Macky Sall formulaire pour sortir sur la crise mu nekk na loo xamante ni ah, si xel mu njëkk yi moom la ki nga moo di le quotidien daal di ah, xam ne rek eh, loo xamante ni ngir nag Macky Sall daal mu daal di amal nag li nga xam ne waaye ba tey gis nga eh, le président Macky Sall eh, il moom tamit mu ngi wax daal si njeexitalam nga moo di mandat maanaam le 2 avril 2024 ngir nag mu mun a nag bu mu changé benn yoon li nga xam di discours am parce que dafa waxoon ne le 2 lay daal di jeexal li nga xam ne moo di mandat loolu ku ñu ko ne mooy ki moo di enquête le quotidien daal di dikk si ñu nekk li moo di euh, parquet bi nga xamante ni daal dinañ koy lancer nag bu. Euh, projet euh, ki nga xam moom moo di euh, Ngagne Demba Touré nga xamante moom mu nekk nag am mandataire waaye gis nga dañoo daal di mandataire yi mandataire yëpp daal di rek ay greffier leen waaye tamit dañoo daal di bokk ndey bokk bàyyi gis ngeen ba mu naree ji taxaw ak jour premier jour bi di amal nag jàkkaarloo ak moom moo di doyen des juges mu kenn moom moo di ñoom ñëpp dañoo daal di booloo bokk ndey bàyyi génn gis ngeen jàmmale fa amoon ba tey nag loolu ñu jàpp si juróomu nit ñoo xamante xamante ne nii ay mandataire leen bokk fële sa diwaanu mbuur ngeen nag li nga xamante moom moo di mbir moom xewoon sa diggante ki moo di Ngagne Demba Touré ak juge bi gannaaw ay jàmmaloo yi fa amoon rek mu nekkoon nag eh, bu méttee métti waaye tamit ñu ñëw rek si li nga xamante moom moo di Le Soleil Le Soleil daal di ñëw nag si bilan bi nga xamante ni eh, moom mooy dara nara njëkk rek si li nga xamante moom moo di mbir bi nga xamante moo xew fële nga xamante moom moo di eh, diwaanu Saint-Louis ci gaal googu waaye tamit euh, premier ministre bi daal di nay euh, dem nag seeti nag ñi nga xamante ne ñoom ñoo daal di euh, amee ay gaañu gaañu massaw aussi ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan si li nga xam ne moom moo di jéeyu ja xewoon fa la nga xam ne moom moo di fa nga xam di euh, Saint-Louis waaye ba tey rek mbir maa ngay gën a yokk maanaam mi ngay augmenté maanaam ñi nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan fu mu nii toll nañ si ñaar fukk ak juróom ñaar yoo xamante daal dañoo ñàkk seen bakkan euh, si nag li nga xam moo di euh, mbir moomu xew fa nga xam ne moom moo di fële sa Saint-Louis ba tey rek dañuy daal di aju rek seen moo di la tribune la tribune nag dafa dikk rek li nga xamante ni moom moo di langue politique bi soit bi nga xamante moom la paysan jël Euh, kii di Bougane euh, Gueye moom nag euh, li mu daal di xam ne rek moom moo di kii di président bi nag war na mën a nag génn daal di ñuy abal réew mi gannaaw nag gi nga xamante ne war na mën a jeexal le 2 avril na daal di dem nag abañu Macky Sall et li nga xam ne moom moo di ak politiciens yi moom kaddu Bougane Gueye la moom nee na Macky Sall ak politiciens yi ñoom nañ xam ne réew mi di patrimoine moomuñu ko Sénégal yëpp ko bokk nañ xam loolu bu baax a baax Macky Sall doit passer euh, li nga xam ne moom moo di nag euh, le 2 avril 2024 19 candidats yi nga xamante ni ñoom lañ daal di waxoon rek ne euh, dinañ si yokkam déet dañuy ibbiwaat li nga xam moo di parlementaire bi ngir nag ñi nga xamante ne recalé woon ñu mën a bokkaat waaye tamit loolu mujjul am dañoo daal di maintenir li nga xam ne moom moo di 19 candidats yooyu nga xamante ni dañoo daal di bokk nag si nga xam moo di nar a jëm si ñu nar choisir kan moo nar a nekk njiitub réew mi Walf Quotidien daal di ñëw rek di Macky Sall refuse li nga xam ne moom moo di ay scrutin moom nag loolu la daal di xamle si xët mu njëkk bi Macky Sall las le Sénégal maanaam Macky bàyyil li nga xam ne moo di euh, Sénégal moo di euh, Anta moom nga xamante ni daal mooy euh, soxna soo xamante ni moom mooy bokk si li moo nga xamante bokk si candidat yi jëm fa nga xam moo ñu nar jiit jiite réew mi ëllëg waaye nag moom mooy euh, avocat ñi nga xamante moom moo di ini ini euh, étudiants yi moom Anta Babacar Ngom ñu dem rek fexe moom moo di euh, lëkk Euh, la ki nga xam ne les échos nag daal di ñëw euh, affaire Sonko ak Adji Sarr moom tamit daal na si ayu baax a baax Mame Mbaye Niang ak ki nga moo di euh, ki nga xam moo di Sonko daal dina si ñëw baax a baax procès amnistie yi nga xamante ni aussi daal dina si jëkk wax si ab pàcc bu yaatu Sidiki Kaba daal di génn moom tamit si nga xamante ni moom moo di bës bi le jour moom nee daal li nga xamante ni mooy choix bi nga xam ne moom la président jël moom tamit daal dina si addu bu baax a baax mu nekk nag eh, loo xamante ni daal eh, lu eh, ne lu am solo la fi nga xamante moom moo di kàddu yi nga xam moom la Sidiki Kaba daal di yëkkati ñu daal di dem nag fa nga xam ne moom moo di international international nag la ñu fay daal di euh, xam rek moom moo di euh, réfugié bi nga xamante ni mooy la Mauritanie ak HCR euh, nga xamante ni ak agence bi nga xamante ni mooy agence coréenne bi dañoo daal di amal nag benn coopération boo xamante ni ba pare signé benn accord accord nag accord financier la ñun daal di dikk na si ne moom moo di accord financière boobu a été signé Euh, ce mercredi entre l'agence croyen bi nga xamante ni moom moo ko daal di def ak nag euh, coopération internationale bu quoi quoi ça bi nga xamante moom moo lancé euh, lancé des Nations Unies moom nag ñoo daal di rek am benn coopération boo xamante ni euh, bu mucc ayib la waaye dañ ko daal di réfugié ki nga xam ne moo di Mauritanie pour euh, faire face au euh, arrivée du refuge bi nga xamante moom lañ daal di amal foofu noonu mu nekk nag loo xamante ni ba tey rek ki ñu ko xamle moom moo di Wii Sport moo ñu xamle loolu maanaam RFI ba ñu ñëw fële sa Texas foofu nag li nga xam ne moo di l'opposition ba ki nga xam xamante moom moo di euh, yaaya Diallo moom nag daal dinay ñàkk bakkanam ki ñu ko xamle rek moom moo di euh, procureur moom moo ñu ko daal di xamle euh, Yaya Touré nga xamante ne nii moom daal dinay ñàkk bàkkanam si mercredi bi 28 février 2024 bi ñu nekk si li nga xam ne moom moo di suite une blessure boo xamante daal yore woon na ko waaye tamit mu ngi daal di ñàkkee bakkanam fa nga xamante moom moo di saison boobu nga xamoon moom moo di partem fa nga xam ne mooy la parti bi nag annonce bi nag di ko daal di def si 29 euh, euh, nga xam ne moo di février 2000. 24 bi par ki nga xam ne moom moo di euh, procureur moom moo ñu ko daal di xamleel bu baax a baax euh, tribunal grande instance bi nga xamante ni euh, ñanama moom moo ko amal Omar Keyabe moom moo daal di nekk nag ki moom moo di procureur bi moo xamle nag li nga xamante moom moo di loolu loor bu mu gannaaw bu mu doon def nag conférence ànd kook ñi nga xam moom moo di presse bi ki nga xam moo di RFI moo ñu xamle loolu mu ne nag am na ay maanaam ay dizaine de personnes maanaam ay fukki nit ñoo xamante daal ñoom tamit daal dañoo amee ay gaañu gaañu ak ay eh, nit ñoo xamante dañoo daal di ñàkk seen bakkan ak nag eh, fa ñaar fukk ak juróom benn ñoo xamante ni daal ay nit leen ñoo xamante ni dañoo dal di préserver loolu tamit eh, amal nañ ko toujours selon ki ñu ko xam rek moom moo di procureur moo ñu ko xamle fi nga xam ne moom moo di si diwaanu fa nga xam xamante ni ay l'ancien président eh, bi nga xam ne moom moo di eh, Assane Minuni moom tamit dal di nay ñàkk bakkanam à l'âge de 80 88 ans 98 ans du moins moom la daal di ñàkk bakkanam l'ancien président de la eh, Tanzanie Ali Ali Hassan moom tamit euh, moom moo ñàkk bakkanam euh, désormais euh, li nga xam moo di militant yi nga xamante ne ñoom ñoo daal di aju nag si nga xam moo di pays bi pays d'Afrique de l'Ouest est décidé de si jeudi bi nag à l'âge de 98 ans daal di nag ñàkk bakkanam si période boo xamante ni moom nag ki nga xam ne moo di RFI moo ñu xamle loolu mu nekk nag ancien président bi nga xam ne moom moo di ancien président Tanzanie xamante ni moo daal di ñàkk bakkanam moom nag ay atam mi ngi toll rek si 98 ans maanaam ñi téeméeri at yu manqué ñaar la daal di amoon ñu dem nag si euh, langop euh, politique bi langop politique bi nag euh, langop tàggat yaram des moyens ñu daal di dem nag international fa nga xam ne moom moo di athlétisme athlétisme nag fu mu toll nii ñi ngi xaarandi 128 athlètes attendu voilà temps 28 le ñu ngi leen di xaar fële sa Saint-Louis le 20 avril 2024 prochain bii nii waaw l'organisation du Texan international d'athlétisme ont fait face à la presse ce jeudi matin à Saint-Louis daal dina à l'occasion pour euh, ce à l'occasion le directeur technique régional de euh, donner les fichiers de euh, l'envoyé l'international et le lance d'une appel boo xamante ne nii euh, pour autorité la ak ñi nga xamante daal ñoo daal di def réflexion bi de la euh, prise pour nag stade bi nga xamante mooy stade Mamadou Wade ngir nag ñu gën koo saytuwaat gannaaw bu ñu defee rek euh, concertant daal di nag amal li xam mooy ay participants yu bëri yoo xamante ne nii épreuve ak li nga xam moo di relance 128 athlètes ak 14 épreuves épreuve yoo xamante ni daal dont huit yi euh, chez le euh, li nga xam ne moo di ministère bi nga xamante daal nay musée l'ex-prise bi nga xamante ni moom moo amal loolu cent mètres ak quatre cent mètres huit mètres ak cent mètres yoo xamante ni bees la cent dix yoo xamante ni aussi bees la ak li nga xam ne moo di euh, ñu ñëw si wàllub soo bi soo nag moom tamit ba léegi soo en longueur na daal di amal nag ñoom tamit seen lance du poids six yoo xamante ni daal ay six épreuves li nga xamante ni si jigéen ñi nañ ko daal di amal euh, cent moom tamit ñoom tamit cent mètres ak quatre cent mètres ak huit cent mètres ak cent mètres yoo xamante ni haute la ak euh, li nga moom moo di longueur et lancer poids loolu yëpp nañ ko daal di euh, amal nag c'est li nga xamante moom moo di athlétisme yi gannaaw nag ñi ngi xaarandi daal le 20 avril ak fële sa Saint-Louis ñaa 128 personnes yoo xamante ay athlètes athlétisme ñu dem fële sa Sadi Pro euh, foofu nag euh, daal di amal nag match boo xamante ni daal euh, Al Nasr daal di na koy tendu li nga xam ne moom moo di échec par Al Sadd malgré nag bi nga xamante ni Sadio Mané daal di nay dugal bi Au terme d'une match complet, euh, Al Nasr a été tenu en échec euh, par Al-Zamz euh, ce jeudi 4-4 leen def maanaam kenn ku ne nga dugal sa moroom ñeent bal lors d'une lors de la 22e euh, journée bi nga xamante moom leen doon amal loolu nag Al Sadd Pro moom moo ko daal di malgré bii bi nga xamante nii Sadio Mané dugal na ko il leur a rendu l'avance en fin de en fin du match loolu nag maanaam nit ñi nga xamante ni daal daal di neen koy nit ki nga xam moo di. gastro moom nag daal di nay bàyyi nañ li nga xamante moom moo di fil bi mu daal di roganaat loolu nag ki ñu ko xam ne moom moo di euh, rapport huit espoir moo ñu euh, xamle loolu ba tey rek ñu euh, wéyal nag li nga xam moo di fii wàllub tàggat yaram bi procès Gris 2 bi nga xamante ni aju na si wàllub lutte bi nga xamante ni daal nay écoué li nga xam ne deux ans de prison lañ ko daal di def ak amaan nag maanaam cinq cent mille francs si suñu kopparu réew moom verdict ba daal di nay daanu si kaw kaw ki nga xam moo di Gris 2 gannaaw nag bi ñu ko tuumalal li nga xam moo di lam ko jot a def waaye tamit daal di nañ koy tegal nag maanaam ñaari atu kaso yoo xamante ni da koy euh, de succès la koy tëdd ba pare nag tegal ko si amaan boo xamante ne nii daal euh, tollu na si 500000 francs si suñu kopparu réew mbokk yi looloo gënoon fës si nga xam moo di suñu xibaaru euh, lu gën a fës si yéenekaay yi xanaa rek daal di ndaar képpee li nga xam ne moom moo di ki nga xam moo di um, annuel bi nga xamante ne mooy septième édition bi nga xam ne moom la seex euh, ak seex ki nga xam ne moo di euh, Cheikh euh, muy war a daal di organiser li nga xam ne moom moo di euh, septième édition bi di ko amal nag at mu nekk rek mu koy daal di amal ngir nag ànd kook euh, ñi nga xamante ni sànq rek maa ngi fay seen Assane Fall ñoom nag nekk nag si ginnaaw sëñ bi ak nga di sëñ Assane Kane di ko daal di jàppale waaye ko dooleel sës ko rek si moom ki nga xam moo di sëñ Matar nag daal di def tey septième édition di ko def nag ziar ànd ko mbokk taalibe yëpp niki tey lañ koy amal Euh, di ngeen am nag li nga xam en direct sur li nga xam moo di euh, euh, Kabir TV xaar lañ ko léegi c'est exclusif ma lay doon boo xamante ni nañ ko daal di topp di début à la boo xamante ni amal leen ziar bu am solo daal di jëlee fii ànd ak mbokk taalibe yi ànd ak ki moom moo di Cheikh Matar Gueye daal di jóge fii nag dox ba Nasru fekk fa ki moom moo di Serigne Assane Kane nga xamante ni moom moo ko seexal di sëriñam di borom xam-xam bu mag a mag mbokk yi si kanam tuuti loolu lay doon en direct fii fii si nga xam moo di Kabir TV jërë ngeen jëf ñu ngi leen di ziar bu baax a baax den jox dig daje euh, lundi incha allah rabi si Kabir matinal waaye tamit à travers la Kabir TV di jaajëfal Assane bu baax a baax moo nekkoon si li nga xamante moom moo di mbir mi di jaajëfal yàgg di nuyu nag toute l' équipe Kabir TV merci beaucoup et suivi li nga xam moo di suñu programme fii si Kabir TV.